alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu di ziyaare bu baax a baax di lokkeel képp ku ñuy teewlu ak fu ñu mën di teewloo rek ci àdduna bi yépp waaye di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi ak ndokkeel yi mawlaana sunu sëriñ suñu kilifa cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul aam lil muridin di ñaanal suñu borom di ko ñaanal suñu borom dëgëral ko eh, yokk ko kàttan yokk aw fanam bam sottal naa ni naan ci toolu sëriñ bu mag bi yëpp waaye di ko ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam di ko jàppale ci liggéey bi yëpp yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi te ñun taali bi yëpp ñu am ci ak ñoom di nuyu bu baax a baax a baax ñu teewe jotaay bii di benn ci jotaay yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma da ko baaxoo ànd ak mbokki taalibe yi ci weeru safar wu jot di ko doore ci juróom-ñeenti fan safar ba ca fukkeelu fan ba ak ñeent neuf safar ba quatorze muy waxtaan yoo xam ne yàgg nañ koo amal fii ci jumaa yi am ci juróom yoo xam ne dañu koy defee fii ci biir jumaa ji ci taxawaayu daayira bi waaye am ca benn boo xam ne yëpp dañ koy ànd ak bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci organisation màggal gi waxtaan yi nag ni ñuy faral di da doxee mooy day am ay thèmes yu wuute waaye nag yu ci bare bari wala boog yu ci ëpp day jëm ci lu soxal sëriñ bi ak murit gi ak màggal gi tey jii nag ñu war koo doore ci benn waxtaan woo xam ne dafa bokkoon ci waxtaan yañ programme woon ca biir koor ga ñu programme woon ko ca euh, fanweereelu fan ba far yàlla dogal koor gi yamoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waxtaan woowa dafa jëmoon ci lu aju ci jàkka ak taxawaay yiñ ci war a amee waaye nag mel na ne suñu borom lépp lu mu yeexee rek day lu gën waaye lépp loo xam ne da ko dogaluwul rek jamonoom dafa ñëwul day mel ne waxtaan wi fii mu ñëwee dafa tase ak ñu baree bari yoo xam ne mën na koo layal waaye mën na ko dëgëral waaye mën na koo gën a jox beneen maanaan yaakaar naa yooyu buñ ca tuddee rek ne dafa tase sëriñ bi muy Cheikh Amadou Muntaxa jox ñaari kuréel yii di daayira Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahiin ci ñu taxawal ab mbooloo moo xam ne ñooy saytu lépp lu ci jàkka yi ak jumaa yi nga xam ne ñoo ci biir mbooloo moom bu ñu taxawee ba am ci ndigalu sëriñ bi far yàlla dogal ñu programme woon waxtaan woo xam ne dafa jëm ci loolu foog naa bu ñu ko wàccee wala boo yàlla dogal mu néew ba ci biir safar gi ñu doore ko waxtaan yi day nekk loo xam ne da ko yokk maanaa ci lu kon waxtaan yi di waxtaankat boo xam ne xam nañ ko ci média yu bare bëri waaye xam nañ ko ci ay taxawaay yu bëree bëri yu mu def ci biir dëkk bi yaakaar naa bu ñu tuddee taxawaay yi mu am rek ci biir daayira Rawdu Rayaahiin dana mat sëkk dana doy sëkk muy sëriñ Maam Balla Mbàkke Muxtaar kon ñu ngi ko dalal bu baax a baax di ko tatagal di ko jox kàddu gi bu ko defee bu ñëwee ci waxtaan wi xëy na du yàgg 40 minutes jëm 50 minutes incha allah. bu ñu ñëwaatee danañ gën a indi ak leeral ci bu ñu amee lu ñuy commentaire ak lu ñuy leeral ci majlis bi ñu doon junj léegi te muy mbooloo moom nga xam ne sëriñ bi daf leen a jox ndigal pour ñu war a taxawu jumaa yi ak jàkk yi nga xam ne ñoo bootu ci yoonu murit te nekk fii ci biir dëkk bi kon sëriñ bi bismillah euh, ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la massawu di la ñaanal suñu borom defal la tawfiix bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah xaq xamdihi wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqihi muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi baadihi wa radiyallahu an abdihi xadimi rasulihi summa salaamu minallahi aleykum wa ala jamihi ibadihi ñu ngi leen di ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Cheikhul Khadim ñaanal ko gërëm ñoo ngi leen di ci nuyu yi di am mbégte ci ànd ak yéen jotaay bu tedd bi ci barab bu tedd bii waaye ñu fas yéene waxtaan lu tedd lii nuyoo yi ak ziar yëpp nag ñu ngi ko teg ci loxo Cheikh Abdoul Khadim ñu jàllale ko ci mboolem mbokk yi nga moo tax moo ko taxawal moo waaye di ko jàllale si daxante ma xam ne seen jëriñ ak mbokk yi sëq yëpp ñu ngi guddal ci nuyoo yi comme ni mu ko waxee rek jataay bi ci kaw bi lañ ko waajoon waaye xol sama doom bi bëggal mu am ba ci wéyum seen xarit yi ñu yeesalaat bi suñu xaj waxee nag tomb bu am solo la ci jamono yëpp waaye raw ci jamono bii comme nun mu ko waxee muy jàkka lan muy ab taxawaayam jàkka lan muy ab taxawaayam xam naa waxtaan bi fas yéene tëggee nag mooy dañoo baaxoo baati arab yi nga xam ne moom la ñuy tënke wax bi baat yooyu lañ ñuy tënke rek bu ñu ko ñëwee loolu dañuy am bunt ci liñ bëgg a mooy al masjidu wa wadaifuhu wala wadifatul masjid wadifatul masjid buñ xam ne lan mooy ak lan mooy masjid rek daanaka dañ am bunt ci waxtaan bi euh, su ko defee boo ko dikkee nag ci yenn ci wadaif yi xam ne masjid dana ko am waaye xëy na dañ tudd benn ci masjid yi comme nanoo sëj nga xam duñu wuute lu bëri xëy na ci zorof yi bërëb yi ñuy nekk ak jamono yi nekk rek ci la ñuy wuute waaye ñun ñëpp daanaka ñu bokk caractère ñuy euh, seen ay melokaan euh, bu ñu ne almasjid nag ci loo xam ne muy firi mooy dana firi jullikaay dana firi tam bërëb bu ñuy sujjoote barab barab ñuy sujjoote dana firi waaye nag dafay jël cër bi sujjóot cër bi sujjóot masjid la masjid mën naa nekk barab bu ñuy euh, jullee waaye mën naa nekk barab bu ñuy sujjóote waaye mën naa nekk tam cër buy sujjóot ci lu am bu dee ci maanaam tënki baat nañ ka istilaax bëri na taalifaat bokk ca dañuy wax ni al masjid mooy néeg yi ñu tabax ngir di ca julli ngir yàlla nii gi ñu tabax ngir di ca julli ngir yàlla nga xam dañ koo jagleel borom subhanahu wa taala taala jagleel ko di ko fa jaar kon bi ñu almasjid mooy barab boo xam ni dañ koo tabax ngir dafa julli ngir di fa jaa di julli gi yàlla dafa jaam yàlla kese eh, du ñu ko jàpp keneen wa anna al masajida lillahi lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada alxam ne ne jàkka yi yàlla moo leen moom bu leen fa jaamu keneen ku dul yàlla kon bépp barab boo xam ni mën nañ faa jaamu yàlla rek di ko fa su jóotal mën nañ ko tuddee masjid bépp barab boo xam ne mën nañ faa jaamu yàlla mën nañ fay si jóot ngir yàlla mën nañ ko tuddee masjid te loolu yéen bi saw sax ba ko ma ni joxe na deel ardu masjidan wa taxuuraan joxe na deel ardu masjidan wa taxuuraan yi dem sax sax suuf si lépp defal nañ ma ko muy eh, sujjóotukaay am na ci yeneen diine yi wala ci yeneen xeet yi ñoo xam ni bu fu leen neex ñu julli dañu am bara ab ay bërëb julli kaay foofu mën sañ jullee julli nag foo ko fekk foo ko fekk rek te sañ sañ naa julli foofu même bu amul ndox sañ naa laab ca suuf sa sa julli ca suuf sa loolu sax ñu joxe la del ab masjidan wa taxawra bu dee ci niñ ko baaxoo nag maanaam nit ñi xam ci ci ci urf day mel ni bu ñu nee masjid fii moom liñ ci liñ ci gën a li xel dem mooy barab yi jagleel julli juróom ñaar bu ñu bu nee masjid xel bi ba dañuy tabax masjid dañuy tabax jàkk xel yi dañuy dem barab yi ñuy daje di fa julli julli yi juróom su ko defee mu am ay xeet wala ay tur yu nuróo te bokkuñ te léeg-léeg itam. Euh, euh, maanaam ñu xaw a duggante lu mel ni masjid daañu wax masjid daañu wax musalla daañu wax jaamia daañu wax masjid muy jàkka daañu wax musalla muy jullikaay daañu wax jaamia muy jumaa euh, comme li ko waxee léegi bépp pàkk boo xam ne wér nañu mën faa julli rek des koy lim ni jàkka la wala su jootukaay la comme ni ko xadis boobu jàngale waaye jàkka ji nga xam ne nag ay ahkam fiqhiya daf koy gaar dafa am ay jagle suñu ne masjid suuf see yëpp masjid la fu ñu mën a julli rek waaye nag bu fekkee dafay am masjid boo xam ne dafay am ay ahkam fiqhiya yoo xam daf koy gaar foo foo day am ay ay xam mat naa xàmmee bokk na sax jàkka ji nga xam ni ay attey fiq day tegu ci kawam barab la boo xam ne dañ ko war a wax waqf ngir julli barab la boo xam ne ko war a waqf ngir makaal moo ko fa di sawar waqf ab bunt la boo xam ne xamee sax ko mooy nit ki jël alalam joxe ko ngir yàlla mooy moom jëmm ja waaye njëriñ la moom ñam ko jox kuréel ga nga ko jox ci jullit yi moo xam néew doole wala moo xam jàngale ko ne ñu ngi ko ñoo ñoo ko jagloo ñoo ko jagloo kon jàkka balaa am attey lislaam attey fiq di tegu ci koom faaw day nekk bala moo xam ne ardul mawqufa maanaam suuf suñu waqf la maanaam du doon maanaam maanaam bien commun lay doon du doon bien maanaam euh, privé bépp soxali maanaam wax fa nañ ko wala ñu xobus ko comme ni ñu waxee nga xam nañ koo jàngale ñu fa julli kese loola man lañ tuddee masjid muy jàkka joo xam nag ak ah, tey jàkka day eh, tegri kon jàkka bu ñu ko waxee mooy barab boo xam ne barab jullikaay la waaye am nag jagle te mooy barab la boo xam ne ak nit du ko moom wala boroom daf ko joxe ngir julli jëpp bokk ko nga xam ñëpp ci sax yam sa cël bu dee musalla nag jullikaay mooy bépp béréb boo xam ne moom des mënees di fa ñaan rek duñ ca nekk ko na ko moom nit ki bu ko neexee këram saala bu nekk maanaam sa mu musalla sa bu ko neexee nga jël saal sa sa ëtt wala garab sama garab buntu kër bu nekk ma def ko musalla waaye boo doo yore atte masjid mën naa nekk sax bon moo xuuf mën na ko bañ a nekk tam na ba neex nga benn barab c'est que jagleel ko jullit yëpp mu nekk ab jullikaay rek bu la neexee tam nga moom ko déglu kenn ku la neexee fay julli dina dañ nekk jullikaay kon dañ ciy déggee ni al ak musalla muy jàkka ak jullikaay kese daañu mën a ci yenn àtte yi ba ñuy njëkk mooy al masjid ñu ko tuddee léegi mooy barab wax dañ koo waq. ngir julli boo wax ne kenn sañu koo jaay kenn sañu koo maye kenn sañu ko ah, caa def leneen ate wax fu nag mi mi mi ngi dépendre si maanaam ki nga xam ni moo ko moo ko joxee moom di dund ñaari asuwaan la def wala ñam ko jox moom mi ko joxoon su dundatul ate bi lay soppi waaye ñam ko ko jox dundatul ate bi lay waaye diiru waqfu gaa ngi wéy moom barab ba ñu waqf pour maanaam def ko jàkk di fa julli barab la boo xam kenn sañu koo jaay kenn sañu koo maye kenn sañu koo tere kenn sañu ko def leen ñaareel ba jàkka li mu wuuteeg jullikaay jàkka jigéen ju gis mbaaxu jigéen rey du fa dugg maanaam du fa toog dañu ko def moom sax fa julli jàkk nege noonu nit ku yore janaba dañ ko koy tere te bu doon barab boo xam ne barab bu jullikaay la maanaam ab jullikaay rek maanaam ab saal wala ñuy préparé pour dafa jullee loolu ato yooyu dañ koy tere al xaaidu muy jigéen bi gis règle wala al muy nit ku am jalam boo xam ne gënul jigéen bokk na ñetteel yi ñu wute jàkka ku fa dugg bala nga maa toog da nga ko war a nuyu li ñoo te bu dee jullikaayu kese nii musalla moom jën julli ma ma jëm nuyu mën ngaa ñëw rek toog waaye jàkka moom boo fa duggee bala nga faa toog war a nuyu jàkka ja ci ñaari rakkaan bokk na ci euh, yooyu mooy jàkka kenn sëñu ko tabax ci kaw allah moom mu doon ay jullikaay bu dee jàkka ji dafa xam te mënuñ ko yàq li mën nañoo tabax ci kaw étage waaye di ci julli kanta tabax jàkka ji nag ca kaw dëkk fa def fay logement di ko luyee wala ay boutique wala commerce yooyu loolu loolu kenn sañ ko maanaam bu xasee nekk jàkka kenn sañatu tabax ca kaw di ca dëkk doonte wuute am na la ci li sës ci jàkka ji maanaam ndax mën naa nekk ay magasin comme ni ma amee fii day gis fii ñoo xam ni jàkka yi euh, dañuy wut ay dañ ciy dagg dara ci li ko wër enclave bi alantu bi def ko ay cantine di ko luwe di ko euh, gérer jàkka yi xëy na yooyu am na ñu ni mën naa nekk am ñu ko dugg dugal ci la rek waaye daan soo moom bërëb bu ñu ko xasee ni bërëb bi jàkka la moom mënut a nekk ay logement mënut a nekk ay commerce déedéet dafa war a nekk bërëb boo xam ne jàkka julli kese la jaamu Yàlla kese la jëm am leen comme euh, yooyu yenn la ci nga xam ni jàkka wuute na ko musalla muy bari bu ñuy jullee beneen tur bi ñu tuddoon léegi muy aljaamiu nag bépp jàkka boo xam ne dañ koy taxawal jumaa moom lañ naan jaamee jaamee mooy fi ñu taxawal jumaa ci jaamee tam fa la ñuy defee intikaaf intikaaf mënees ko defee fu dul jaamee ndax ki koy def daa war di julli daa war di julli jumaa te sañu te génn tam intikaaf boo génnee day yàqu kon bokk na ci ay xusuuse yi mooy foofu rek mën a julli juma jàkk kenn mënu fa julli juma musalla kenn mënu fa julli juma donte ay ay ay ay ay ay ci boo xoolee ñu ngi ci yoo xam ne xëy na waaye loolu ci juróom yi lay doon xëy na fu leen ni boo demee ay Europe wala ci yenn barab yi nga xam ni ay jullit dañ fay dajale ci dajale ci yenn ndaje yi hôtel ya ñuy dal am na ñu ubbee ni man nañu wut benn salle fi julli juma di xutba am na ci euh, fuqaa yi ñu ko saxal loolu mën naa nekk doonte foofu du barab bu ñu tabaxoon ngir jumaa waaye zuruuf yi moo euh, maye ñu mën fa euh, xutba jullit koo war a tabax ngir di fa julli jumaa waaye itam foofu rek mën a itikaaf bi kon yéen loolu leen la ci ñu doon andi rek ci lan mooy jàkka masjid bi la ko wuutale ak musalla waaye lu ko wuutale ak jaama euh, bu ñëwee ci wasaif yi nag wasaiful masjid yi baatu wasifa ci luxal arabiya mooy lépp lu ñu nattale ci ay jëf wala ak jëf ju mën doon lu mën doon rek loo xam dañ ko tënk ci waxtu ni waxtu yu bu jotee lii lañ ciy def loola wasifa la wasifa mooy mën naa nekk jaam yàlla mën naa nekk addugee mën naa nekk leneen tam lépp loo xam ne dañ koo dog ci waxtu ni lii yëpp sàngam lii lañ ciy def ak ko ko jox loolu wasifa la dana ñëw ci maada alxidma nañu alxidma alxidma wasifa la xam ne service lay euh, baat ci al dafay nekk daa nekk manusik muy poste wala tu wax fonction wala métier wasifa dafa nekk daa nekk tam alxidma maa muayyana muy service bu ñu ràññale kon wazifa mën naa nekk métier mën naa nekk ab liggéey mën naa nekk maanaam liggéey la muy ab liggéey boo xam ne dañ ko wutal waxtu waxtu wu jotee ñu ko cay def euh, kon bu ñu nee wazifatul masjid mooy jàkka lan mooy ab liggéeyam lan mooy njariñam lan mooy taxawaayam ci l'islam bi waaye ci société bi itam ngir xam euh, lan mooy taxawaayu jàkka wala lan mooy ay ay wasaayifam nag mën nañoo dellu ca alquranul karim waaye mën na de mënoon dañ sunna annabiyu sharifa waaye mën nañoo dellu ci taarix tam bu dee alquran borom subhanahu wa taala day wax ni bismillah rahmaan rahim fii buyuutin أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزم له أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب aaya bi ba mu sant alwani ay néeg ak yoo xam ne am na néeg yoo xam yàlla daa digle ñu yëkkati ko am na ñu ni pour man trop ñu tabax néeg yooyu lu bëri ci bu fassiroon yi dañ ko firee ni jàkka la am na ñu nag ay kër la kër yëpp parce que kër yëpp lañ mën a jullee waaye ñoo firee nañu ah, dañ ko jagleel jàkka mu ni yàlla digle ñu yëkkati ko tabax ko di ko fa tudd di ko fa sàbbaal suba ngoon ña def nañ ay góor lañ ñoo xam ni Euh, commerce ak jënd ak jaay du leen occupé ba du ñu tudd yàlla ak taxawal julli di génn asaka ñooñee day dañoo ragal bis boobee nga xam ni euh, euh, xol ya ak gis ya day dëpp ngir yàlla fay leen ca nag gën jaa rafet loole ñu leen ca ci ngëneelam ndax yàlla mooy wata ko sob aaya boobu day tegtale ni kon jàkka li ko tax a jóg mooy jaamu yàlla dafa tax mooy jóg ñu fa tudd euh, na beneen aaya wa man adlamu man manaa masaajid la an yuzkara fiihaa smuhu wa saa fi xaraabiha ulaa'ika maa kaanu an yadxula illaa xaa'ifiin lahum fi dunyaa khizyun wa lahum fil aaxirati wa lahum fil bi alquran wax ne ana kan moo gën a mën a tooñ ñiy tere jàkka yàlla yi di tere ñu jaamu fa yàlla ko fi tudd turam ba ñuy dox wala jëf ci lu ko ràppal ñooñu de waruñu dugg ci jàkk yi bu seen fit daa dem tiit ragal leen ragal leen fay fekk ndax ñooñee euh, danañu toox ci àdduna ba àllaaxira dañu am mbugal bëri na ay ay teg yuy tegtale ni jàkk li ko tax a jóg kon mooy jaamu yàlla kese jaamu yàlla kese Euh, bu dee ci sunna Yonent sallallahu alayhi wa sallam moom it ay xadis yu tegtal loolu am xadis a ngi xadis kursi borom saa taala di wax ni yonent bi di ala inna buyuti fil ardi al masajid yàlla wax nañu xadis kursi ni sama néegi wala sama kër yi suuf mooy jàkka yi tudiu li kama tudiu nujumu li ahli ard jàkka yi ni biddiw yi nekk ca kaw di niit waa di niital waa suuf si muy leer ñuy gis jàkka yi waa kaw ña ne sa kaw ña wala malawul aala ñoo noonu lañu seen jàkka yi mu mel ni luy lu leer bu ciy fenkee ñoom ñu di ko séen di ko xamee mu ne alaa tuuba li man kaanatil buyutu mu ne taxe day ñeel la koo xam ni jàkka yooyu ñooy ay këram wala ay néegam alaa bashiril mashaa'ina fi dhulumaati ila al masajidi bi nuuri saatiq ni nag yàlla bëggal eh, na ñi nga xam ne ñooy dox saa su ne dem ci jàkka yi surtout bu lëndëmee ñu dox ci jàkka yi ci leer guy fenk koo xam ni eh, ña ca kaw dañ di seen kon buñ sukkandikoo ci aaya yi ñu jàng ak xadis bi dañuy gis ni jàkka moom leen dong dong dong moo ko tox jóg mooy eh, jaamu yàlla surtout julli waaye loolu di déggee ci aaya bi yëpp nag ci jàkka ngeen ni jàmm yàlla dafa tax a jóg ak tudd ko doon téewul ne nag dagal na ñu fay mën yeneen activité am na yeneen yoo xam ne dagal na ñu ko yeneen jëf yu dul julli ak ñu tudd yàlla jàkka li tax jëlee ko tabax mooy julli ak tudd yàlla waaye téerewul ni am na yeneen yuñ fa sañ a def yoo xam ne du loolu boo demee tafsir Qurtubi fi muy firee anna al masajida lillah euh, mi ngi wax ma anna al masajida la yuskaru fiha illa allah fa innahu tajuuzu al qismatu fiha lil amwal wa yajuuzu wad'u sadaqaati fiha ala rasmi al ishraaki bayna al masaakin wa kullu man jaa akal euh, al Qurtubi wax ni jàkka day doon wax nañ kenn fa tudd ku dul yàlla teewul daggan na nag ñu fay dajalaay alal bi ko séddale lu mel dafa teg asaka yi ak sarax yi coobaraw yi ci ngir miskin yi ak ñu néew doole yi man koo bokk dagaan na ñu togg ay ñam di ko teg ca jàkka ja ngir ñu néew doole ñi ñëw di ko fekk di ko lekk loolu lu rafet la lii nga xam sëriñ bi mi ngi koy def lay lekk ci bisu al alquran bi ñu joxe ndigal na nit ñi toog toog yóbbu ko ca jàkkaay loolu solo la ndax jàkka dafa dafa maanaam jàkka dafay suuxat li ñu li ñu wax liberté ak démocratie maanaam waa ji dëkk ci koñ bi am wërsëgu yaatu su rayee ay nangam toog ko di ko séddale ci këram am na waa yoo xam ne moom maanaam da ko sëfara wala jubóowu du fa ñëw am na ñoo xam ne fi ne loo man di yor soxlawuñ ñooñu teraanga sa teraanga bi waaw am na ñoo xam ne teraanga yi bu dee ci kër la ne kër diw la ne duñ ca dem waaye bu dee jàkk la xam ne kenn moomu ko man laa si mooy sàppe sang bi mooy sàppe jaam amul jë mooy sàppe ku am wala sàppe ku amul amul biis mooy sàppe ki njëkk ci yëf yi wala ki ci mujj a ñëw man laa jàkka démocratie démocratie totale la moom amul ku moom barab xëy na dañ ko réservé réservé ñi nga xam ni xëy na mën nañoo wutu imam ñu gën a jege imam bu kii ñu mën ko wut waaye bu loolu ñëpp ci am moo tax bu ñëpp jàkka yi loolu tam ñu séddale maanaam ñam yi di ko jàkka yi nga xam ni ñëppay mën a dem maanaam néew ci kër kenn wala kër mbaay kenn ñëppay mën a dem même ku juwoo rek nga ko fay joxee tam su la neexee dem jëfandikoo kon jàkka dagal na ñu fay mën a nekk féete bokk na ci yooyu daggan na même kaso maanaam maanaam ñu di fa tëj nit koo xam dafa amee bor bu njëkk daal ñu tëj jàkk yi prisonniers yi daal nañu tëj ci jàkk yi même daggan na sax comme fu nettali mu dem tëdd jàkk dafa nelaw maanaam nit maanaam ku feebar amul fu mu fajoo maanaam dem dëkk dëkk jàkk la dëkkandoo yi wër jàkka ji mën nañu ubbil baax jàkka ñu ko jëfandikoo lañ soxla comme fii lu mel ni inondation yi am yooyu nit ñi mën nañu leen ubbil jàkka ñoom dëkk man mën nañ fay santaay yooyu man jàngee xasida wala leneen sax loo xam ne xam nañ ko yaa ngi jàkka yi kon ko tax a jóg mooy julli ak tudd yàlla donc waaye am na yeneen mbir yoo xam ne mën nañ ko faa def yoo xam ne julli soxla nañ ko muy seen njëriñ bu fekkee ni ay neen wala am ko jaxasoo ca moo tax eh, buñ delloo ci taarix dañuy gis ni jàkka. daa doon nga gis jàkka moo nekkoon moo doon màndargaal bennoo xeet bi bennoo xeet bi jàkka moo ko doon màndargaal moo ko doon dëgëral jàkka mooy def bis bu ne mu dajale waa koñ waa quartier bi juróomi yoon ci ku ñëwul ñu xam diw daa feebar wala daa problème sànq ku amul xew lu yëg la ci jàkka ji maanaam jàkka loolu room la maanaam euh, euh, dalaa benn nit ñi su aljuma ñu ne ñu yor ay jàkka ci koñ bi ci quartier bi nañ tëj seeni jàkka ñu dem daje jumaa ja su koree wala tabaski ñu ne nañ génn jàkka yi génn tubaab yi dem ca ginnaaw dëkk ba waa dëkk ba yépp loolu ram wax da la maanaam li jublu mooy bennale julli kon jàkka yàgg naa nekk luy bennale xeet luy bennale julli yi am na ndaje boo xam ne bis bi dañ juróom yoon ci jàkk am na ndaje moo xam ne ndaje par benn yoon semaine bi la ci jumaa am ndaje wax nañ ko ne nag ci musalla muy nga xam ne kon jamono ju nekk jullit yi bu ñu musaa nekk ci tedd nga nekk ci jàmm ah, jàkk dañ ko def barab yàlla def ko boo xam fa la ñuy àttee euh, def ko boo xam fa la ñuy euh, di fa jullee ak ak waxtaane si ñu la waxtaane waaye buñ musaa nekk ci jafe-jafe itam mooy barab boo xam ne fa la ñuy daje di fa réunion fa la ñuy organiser riposte xeex yi ñu war a xeex yi rasul yëpp la ñu doon def kon jullit yi jàkka bu dafa nekkoon lu lu lu symbolique ci ñoom bu nekkee ci jàmm fa la ñuy jaamoo yàlla fa la ñuy di waxtaan fa la defe yu bari ah, waaye bu ñu nekkee ci ab safaan tam fa la ñu daa waaj pour war a xeexi wala pour war defandi seen bopp loolu taxoon maanaam nit ñi bëggoon jàkk ndax yu bëree bëri yu am solo seen dund ci jamono jooju ci jàkka lañ ko doon jële li gën a important ci fas ci dund gi ci jàkka lañ ko doon nose moo xam ci seen relation seen biir seen yéen nit waaye moo xam bu ñu nee yu bëree bëri ci jàkka lañ ko doon euh, nose lañ ko doon waxtaane fa lañ doon yi fa lañu euh, ko lool amoon waaye ni ko jamono jamono daa mel ni da cee fo mel ni xaw a soppi rôle ma jàkka say ci yenn barab yi li ñuy wax saxee na lu loolaa ba fi am na seen barab am na baroo xam ne jàkka yi boo demee benn kuréel ñoo ko moom boo xam ne ñoo koy donnante maanaam jàkka bàyyi diw wala jàkka yi maam diw wala jàkka yi ñoom diw kay naa bañ a rafetal nodd waaye mooy nodd kay jiite mën naa bañ a euh, mat ilimam waaye mooy jiite maanaam noonu la tëddal fii jàkkaay bàyyi diw wala jàkkaay maam diw maanaam diw ñoom ñoo ko yor rek am na boobaa nag ñaa xam ne bokkuñ te ñooña moom bokkuñ te kuréel googu bi ñu am cofeel te jàkk ja daanaka si tama nañ cee demee am na ci ñoo xam seen jàkk barab yi euh, fàggu lu ñu yóbbu seen kër lañ koy wute man am mbooloo fay nekk moo xam ni maanaam ñoo yore jàkka ji ñoo koy gérer yor seen kees daanaka ñaari fan ñett ñu ne dañuy yeesal nangam dem wër ci kilifa yi war a borom alal yi laaj maanaam euh, di wut lu jub seen kër bu bokkul ci kuréel boobu daanaka koy jàkk ji doo xam muy doxe am na ci jàkk yoo xam ne daanaka ñeen ci ñu néew doole ñi rek nga xam ni maanaam société bi lu refusé nga xam ni maanaam mënuñu mënuñu seen bopp dara ñoo fay lekk maanaam comme am nañu jot rek xeetu jàkk yi la bokk euh, bokk na yi nga xam nag kon jàkk benn lu mu lu mu defal bàkk benn jàkk yàgg naa bari lu mu taxaw ci société bi yàgg bari na euh, buñ bëggoon nag wax yi ci gën a solo nag ñeenti wasifa ngi yoo xam ne mën nañ koo jàpp ni moom ay wasaif yu am solo la yoo xam ne naka jekk bu jëkk jàkka da daa taxawe te ba léegi itam jàkka mi ngi wii di ko taxawe doon te am na ci yenn yi ay sëpp koy cam bu jëkk ba mooy al wazifatu taabudiya jàkka niñ ko biñ ba tey ñu ko junj ci waxtaane aay jàkka li ko tax a jóg bokk na ca di eh, barab jaam yàlla fa la jullee julli juróom fa la jullee ay juma fa yi jullee naafila weer comme tarawih ak yeneen i julli mbooloo waaye fa la ñu intikaaf bi nekkee eh, jaamia kon xeetu jaamia lu ñu xeet julli yëpp boo xoolee ci jàkka lañ koy defee kon jàkka wasifa bi ñëkk mooy wasifa taabudiya eh, al wasifatu eh, ñaareel mooy al wasifatu tawjihiya wala irsaadiya jàkka barabu bu ñuy jubbantee la barab bu ñuy orienté la barab bu ñuy yaree la barab bu ñuy laabiire la barab bu ñuy jëlee ay euh, nasaaix la ak irshadaat moo xam ci xutba yi koy xutba la ci juma yi wala sax ci bayaanaat yeen fay jàng wala ay muxaadaraat yoo xam ne dañ ko fay euh, tanzim kon ba tey jàkka barab la boo xam ni nit ñi dañ fay dem ngir orienté ngir jubbantiku ngir am na imaam boo xam ne juma dana waar nit ñi xutba ci xutbaam tegtal leen li seen njëriñ nekk mooy seen loolu ne waaye am na ay bayaan yu ñu fay def yoo xam ne ci loolu la jëm waaye mën nañ fay organiser yeneen i waxtaan euh, euh, yoo xam ni ci yooyu lay jëm kon al wadifa thaniya mooy al wadifa tawjihiya wal irshadiya euh, boo ko defee ñetteel ba al wadifa al ilmiya muy baala boobu jàng ak jàngale jàkk bokk dañu wasifa yi gën a yi gën a cosaanu mooy barabub jàngukaay la ay taalu ay doomu xam la ñuy daje bi jàng ay durus moo xam alxuraan la moo xam ci xam-xam yi diine la yeneen xam-xam yoo xam dafa am njëriñ mën nañ ni am na diir bu yàgg lool sax xam-xam ne diine foofu rek lañ koy jànge am nay jamono diin bu yàgg yàgg ci taarixul islam yi xam-xamu diine ci jàkka dong lañ koy jëlee daal ci jàkka fa lañ koy jànge fa lañ jàng alxuraan fa lañ jàng yeneen xam-xam fiqh yeneen xam-xam yi loolu am na diir bu yàgg yàgg yàgg euh, bokk na ci ñeenteel wasifa mooy al wasifa al ijtimaaiya mooy euh, lu jëm ci wàllu euh, social te mooy dimbalante ñu duñu léegi bokk na ci euh, yëpp solo ci ay rôle yoo xam ne jàkk daal ko suyee te ni ko suyee ba léegi mooy méngoo yenn activités yi sociales yi nga xam ne ci wàllu nit ñi lu mel ne fas sëy bokk na ci ba léegi mu ngi am si lu mel ni dajale asaka yi lu mel ni dajale ay sarax ay di ko séddale lu mel ni jàpp leen dimbalante ci diggante nit ñi ci ñuy organiser yenn feeti diine yi am na ay jàkka yoo xam ne mel ni euh, tamxarit bi dañ koy organiser jàkka lu mel ni gàmm yi gis ngeen gàmm gi nañ koy organiser fi jàkka ji ci jumaay tuwaay yi nga dañuy organiser leen gàmm ko mag am ñu fi nañ ko defee ak xeet yooyu ay mbir la yoo xam ni doonte am na jaam yàlla ci côté bi waaye beneen côté bi ci ay ay ay ay ay xafalaat ijtimaa yi la gën a jege yoo xam ni jàkka ni ñu koy organiser kon jàkka am na al wazifa taabudiya mooy barabu jaamukaay yàlla la am na al al wazifa al tawjihiya mooy barab bu ñuy laabire nit ñi di leen gindi la waaye am na al wazifa al almiya mi barab bu ñuy jàngalee la waaye am na al watifa al ijtimaa mi barab bu ñuy dimbalantee la yooyu yëpp bu ci euh, nit ñi xam nañ ko xam nañ yu bari ñu koy dund ba fii ñu ñu ñu yóbbu lañ doonte xam ne dana jaar ñu leeral ni wasaay bi xam ne jàkka mi ngi koy taxawee euh, ci wàllu wépp jamono dox na ba nag dafa am ay ay ay ay yenn structure yu sos yoo xam ni yu ci bari dañoo am ay compétence yoo xam ni dafa dëppoo yooyu jàkk doon def léegi ñu wuute ca jàkka du ni nit ñi yor jàkka ñoo soppi jàkka wala ñoo xamul waaye jamono moo soppi ko lu mel ni xëy na jaamu yàlla ñu ko def jàkkee bi rek waaye bu dee lu mel ni euh, euh, taw jihaad yi taw jihee bi soo xoolee léegi conférence yi ñuy organiser ci ci conférence publique yëpp conférence de presse yëpp ba ci euh, média yii léegi émission yi diine yeeg yooyu bari na bari waay yoo xam daanaka wuutu lañ dàkk ci lu bëri léegi nit ñi mën na jàng ci yooyu mën nañ ci jàng li ñu bëgg a xam maanaam ku ne am nañu fu ñu mën a labiré ci ci ci télévision yeeg ci rajo yeeg ci yooyu léegi wuutu nañ jàkk ci rôle boobu ci joué rôle boo xam ne tax na jàkk yu bari léegi yooyu daanaka joxtuñ kuy du ni ñaareel jàkka ja ñoo def la ñoo def am feneen fu nit ñi jëlee euh, lu mel ni jàkka fa lañ wax nañ ko léegi ci wàllu social waaye soo demee léegi tribunaux yi fa la ñuy àttee léegi du forcément kon jàkka réer nañ ko pour àtte àtte ci tribunal ci àtte boo xoolee jàkka wax nañ léegi fi lañ daa waajale quartier xare gi mën xare bu mën dem léegi cancer nii ñu ngi fi ak policier cadre bi daanaka ñoo yor wàllu sécurité maanaam. maanaam ni société surtout gouvernement yi ni ñu taxawee ni société ni muy doxee léegi tax na am na euh, rôle yu jàkk doon joué yu bëri léegi joué ko bu dee wàllu njàng bi euh, léegi école yi bari na daara yi ci mustawa yëpp tax na mooy jàkk li mu ci daal joué boobu léegi daal rek nii na moon demee kon jàkk ay rôlam ay rôle yu essentiel la waaye jamono mooy dox ba egg ci yëpp xaw a séddalikoo léegi am ay ay ay ay compétence yoo xam ni ñeneen dañ koo yore di ko doxal léegi jàkk bàyyee comme ñooñu la ñu ko doxal kon euh, buñ bëggee xam dëgg-dëgg loolu jàkk mooy lan nañ barab jaamu yàlla la barab bu ñuy yeetee di jubbantee la barab bu ñuy jàngalee la barab bu ñuy euh, dimbalantee la waaye yooyu yii nag bu ni jàkk yi peut-être day topp juróomi bu yàgg xëy na jàkka ko féete woon rek nga daa jox waaye jamono lay dox ba mujj nag ni ñu nosee adduna bi ak ni muy doxee ci yu bëri yoo daa am yeneen structure yu ko méngoo di ko doxal jàkka bàyyee leen ko nag léegi moom a wasifa temps bu duyam moom donte ci ay barab comme fu ne fii yeneen yi ñu koy def maanaam ñu ngi ñu teew suñ jàkka yi ñu ngi def ak ajuwaat bayaanaat yi ndax xëy na solo bi ci am yi doon loolu di ko bàyyi xel euh, comme jàkk nag am na dayo bu toll noonu ak yitte bu toll noonu euh, day tax nag mu war a taxawaay yoo xam ne ñi war a jàkkee wala ci taxawee te mooy wàllu idaara bi comme ñu ko waxee rek jàkka ci wu dégg day mel ni ci mu talakaana xamale bopp maanaam bien commun la jàkka nekkul bien privé ndax bala mu mel ne ay yonaatu jàkka day dañ koy wax suuf sox dañ koy joxe pour jullit bokk kenn du ko moom su boobaa nag idaara ba kon day war a dellu normalement ci euh, autorité yi autorité publique yi autorité locale yi dëkk ba jàkka ja ne ña koy yilif ñoo war a yilif jàkka ndax comme jàkka ñu loo xam ne benn nit moo ko moom boo ko xasee joxe rek moom moom ñëpp a teel kon idaaraam dafa war a dellu ci autorité yi nga ne ñoom dëgg eh, idaara boobu nag mën naa am ci ñaari mustawa benn mooy mustawa sos jàkk ak tabax ko sos jàkk ak tabax ak beneen mustawa mooy mustawa yore jàkka ji ko sayt di ko topp topp muy muy muy idaara daaxiliya bi comme jàkk dañu wax léegi ni ñëpp li jàpp mooy bien public la ñëpp ko bokk bi noonu dafa dellu ci autorité publique yi wala kilifa yi awliyaa umur yi moo tax day fekk ci lu bari ci réew yi jullit yi ay xawaanin xukkum yee yoo xam ne day organiser jàkka yi fu bari am na ko ci sos gi ba ci jëfandikoo ga ci anam bu boo xam ni ay sant yu bari daañu gis ñu di ko nuróole boo xoolee dëkk yu bari seeni législation surtout ndikki jullit yi euh, ni ñuy tërale jàkka dana ci bari lu nuroo lool ci yeneen yi da nga ko fekk yeneen législation yi ci ni ñu koy tabaxe daañu ci tudd yenn bokk na sax jàkka ba leen ko tabaxi barab na fekk barab ba aajo woo ko lool lool lool jàkk ba leen ko tabax na fekk barab ba aajo woo ko ci nit ña bari bari boo xam ne xajul jàkk dafa te kenn mënu ko yàkkal barab ba leen fa tabax jàkk na barab ba aajo woo jàkk ci kaw nit ña bari jàkk yi ba teewu ko jàkk yi nit ña xajuñ ci waaye léegi ëpp sëñ yi surtout jàkk loolu bari na ñoo xam ci ci ci législation yi te si ñu xam ne bu junj léegi ci ma mbajul chose ne ah, ala lil masajid yi bii de ah, ah, am na ci am na ci bunóor yi am na ci lu mel noonu am na ci ñaareel ba moo ñuy sàmmoonte distance bi nekk ci jàkka yi boo demee législation dëkk jullit yu bëri ci seen législation yi nga xam ne day wax ci wàllu jàkka di ko normaliser daañu ci tudd ay distance donc distance yi Euh, day wuute lu bëri ça dépend ci kasaafatu kasaafu sukkaan yi bi nu mu demee rek mën naa demee noonu day ñoo xam naa na mat juróomi junni kilomètre asafala juróomi junni mètre maanaam mooy na ñu ni deux na ñu mille mètres sax mën nañu sax jàkk mën nañu sax jàkk maanaam kenn yëpp ça dépend ci barab ba na nit ña toll ca waaye wala ñu sukkandiku yi ni jàkka na am distance sàngam loolu war nañ ko wax ñu xam ko bokk na nag jàkk kenn waru ko ci suuf soo xam dañ koo fëkk ar bu muq kenn du ci tabax jàkk nag bu si téye du baax wala suuf soo xam dafa am litige maan asal fii nag gis nañ dangay gis ñoo xam ni pour ñu dooleel seen bopp wala ñu ñu ñu légaliser suuf seen bopp dañuy nekk fekk suñu bopp dañ koy xëccoo daal dem tabax ci jumaa wala jàkk ji mag moom moom la seen bopp gis nañ ko te jàkka joo xam ne suuf si dañ koo nangu ci doole kenn jox la ko moo ko ñëpp a bokk kooku bu baax dañ ko teg waaye soo xam dañ koy xëccoo te kenn moomagu ko yoon la attee bu kenn mu fàttama koy seetlu fii ah yu ma bàyyi xel la bokk na sax xam ne dafa coobare tabax jàkka mu sàmmoon teeg règlement yi nga xam ni moom la dëkk ba tëral moo xam commune ba wala réew ma wala dëkk ba mu ne barab ba ne am na ay ay ay ay plan yi ñu war a joxe ci barab bu ne nu tabaxee war a mel dañ naa barab bi tabax bi bu mu kawee nangam dañ naa barab bi tabax bi bu mu diise nangam parce que suuf si la am na norme euh, structurelle yoo xam ne ni ko war a sàmmoonteeg bala ngaa tabax jàkk moo tax nga dégg fi dañu ñëwaat jàkk ju daanu parce que ragal moom dañu sàmmate yi parce que am waaye am na foo xam tam xay na euh, ni jaww ji yi fi jaar lu ma dajee dundee am na ay rayon yu fi jaar laa jut yooyu maanaam yenn tabax yu kawee kawee kawee yëpp nañ ma dawaaye tam kon euh, ku a tabax jàkka boo euh, ko te moom mooy na bara ba ajowoo jàkka ja nañuy bàyyi xel distance yi tam mu bañ a jigee lool bu ñu tabax jàkk suuf soo xam ne euh, amul maanaam dañ koy xëccoo lu ñu noonu buñ maanaam nañ sàmmonte itam règlement yi xam ne moom lañ tëral pour jàkk ja war koo bu ñu amee maanaam lu jëm ci wàllu idaara bi nag moom ak organiser jàkka ji maanaam organisation intérieure bi ñaari moom li gën a bari ci réewi jullit yi ci boo ci gëstu da gis ni euh, majlis idaari yi la ñuy taxawal li ci ëpp moom mbañ su idaatal masjid yi bari na loolu moom nga xam ne mooy doxal mbir jàkka yi kooku bari na ci ay jàkka fu mel ni ay Makka ay Medina ak yeneen dëkk yu julli yu bëri sooy ne da gis ni am nañ majlis euh, euh, majlis idaatal masajid euh, majlis idaatal masjid nag ñaare comme niñ ko xam yëpp ay commission lay doon yoo xam ni dana sosu kemtalaayu ni jàkka ja toll ci réyaay akum ndawaay walla na dëkk ba toll ci réyaay akum ndawaay mbooloo miy jiite jàkka ñaare ci majlis son euh, euh, euh, maanaam idaari soni masaajid yi en général boo xoolee taay bi mu am wala caractéristique bi mu am mi ngi dellu ci na jàkka ja toll rek bu dee jàkka su ndaw la mbooloo tuuti mën na ko jiite bu dee jàkka ju day laaj maanaam bu dee dëkk bu ndaw noonu bu dee dëkk mag noonu yooyu da ci feeñ waaye li ñu seetlaal gis nañu am na ay lijaan yoo xam ni am na lu ñu wóor lu ñu bari am na majalis toon majalis idaaratul masaajid yi am na ay ay ay ñu wóor lu bëree bëri ñaar yu mel dañ ci fekk li ñu àll ñu ne daawiya mooy lañ ne boo xam ni ñooy yore wàllu daax yi maanaam ay daax yi ñu ne war na taxaw bi ci di yaatal diina jéeg di ko taxaw ak di ko jàngale am loolu àlla dina ijtimaaya mooy wàllu social moo koy méngoo ci di saytu nit nii am na lu ne àlla dina amal ay alaabiya wàllu communication àlla dina maale ñuy wàllu san maanaam yooyu moom ñeenti li la yoo xam ne boo doon xool daanaka ci ci majal suuni majal si daal suuni message yëpp daan doon fa gis da nga gis ñeenti li jàng yooyu ak yeneen yu ñu cay dolli nag yoo xam ne day wuute bu ñu jëloon masalan euh, ndax jumaa yi dañoo bari ay entité yu nekk ci biir jàkk dafay bari entité yu nekk ci biir yoo xam ne yu bokkul la te yooyu yëpp dafa jaar ñi dafa laaj di ko nos maanaam jàkk day bari ñoo xam ni dañuy ñëw jàkk am lu ñu fay liggéey duñ bokk lu ñuy liggéey te da nga gis jàkk ji ñëpp bokk ñu fay def te de ñëpp bokk ñu fay def ay entité yu bari moo di ci biir masalan bu ñu jëloon ba ni jumaa Touba comme Namozë jumaa Touba ci euh, tanzim daaxili bi danañ fekk ak ak yi mu am danañ fekk yu bëree bëree bëri ci biir yoo xam ni euh, maanaam des ko mënta ñàkk lu mel ni jumaa ji boo fi danañ fekk dañoo al al al mihraab wal minbar mooy fii imaam di taxaw di jiite ak fi taxaw di xutba euh, yooyu ñaare imaam yi ñoo ko jagoo seen mbir la maanaam minbar bi ak xalaat bi mbirum aima yi la ñoom doomu maam ñoom doog seen mbir la yor ko dee mel ni jumaa Tuubaa da fekk lu mel ni ab dariixa muy barabu sëriñ bi ak ña koy wattu nga xam ñoo ñëwoon loolu seen mbir la ñoom ñoo ko jagoo am na ñoo xam loolu doog lañ fay def ñoom maanaam wattu barab di ko toppatoo loolu seen liggéey bu am na ñoo xam loolu doog seen liggéey bu fa boo xam loolu lañ def boo ñëwee jumaa Tuubaa da nga fekk ah, ab kuréelu xasida boo boo xam ne am na heure ñuy yëkkati ay xasida di ko jàng ñoom loolu mooy seen liggéey jumaa yi loolu lañ fay def ñoom daal nañ man addités yu bari ñoo fi nekk yoo xam ni maanaam ñenn ñi dañ fay xëy nga naan ñi lu ñuy xëy te fekk ñu daa am lu ñu fay def ñoom seen boobu ci la ñuy xëy boo jëlee masjid pour mag jumaa Tiwaawan nag fekk euh, daaray jàngukaay bi daarul maarif al islam yi nga xam ne ay jàngalekat ak jàngkat ñoo xam ne loolu nga si nii ñu leen yóbbu jàngale mooy di tëralal ñe ba ñee bëri bi ñee itam leen ku leen di tëralal kon yu bëree bëri ci jumaa ji boo xoolee ay entité yu bari ñu ne ñoo def ci biir yoo xam ne ñenn ñu daa am lu ñu méngoo di ko def boo xoolee yuy duggante yoo xam ne xëy na am na amul relation directe ak jumaa ji am na relation ci beneen côté nag ba tey dana fekk yi ñoo xam ni xumalul nazaafa ñoo xam ni set setal jumaa ji ak di ko bale di ko notaay loolu la ñuy liggéey ñoom loolu seen liggéey loolu rek lañ fekk boo jëmee jumaa yi dana fekk ñoo xam ne ay techniciens yoo xam ni réparé rajo yaa ngi di ko defar loolu mooy seen liggéey man nga xam toujours da ñoo ñoo koy saytu kon jumaay Tuubaa jël comme bu jël misaal yii ma tudd yëpp ay entité la xëy naa yeneen yu ne ci biir jumaa yi yoo xam ni ah, ay mbooloo yoo ko yor di ci jumaa ji di ci liggéey loolu la lu muy teg rek solo suuf jumaa am solo mu mel ni nag saytu yooyu ak tansiix bi ak organisation dafay dellu ci euh, daayira bu xaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bi ñoom la sax defal tawféexi yooyu yëpp nag ñu di ko nos di ko organiser di ko taxaw ci taxawin bu rafet bu mucc ayib boo xam ne euh, ñi nga sax doon leen cee euh, dëgëral waaye boo doon xool yeneen jàkka yëpp tam nag noonu la mel muy Màkka muy Medina. ak feneen jeneen jàkka joo dem ci ci ci dëkki jullit yi boo dee ci biir jàkka ay entité yoo fa nekk yu bari yoo xam ni yu wuute am lu ñuy def doonte ñun fii am nañ fi suñu xuso seen yoo xam ne moom daanaka fii rek koy fekk nga xam ne moom ay ay ay ay kuréel la yoo xam ne moom euh, ci biir la ñu nekk jàkk di fi xëy yor fi seen liggéey dañ koy liggéey waaye lépp nag ñu teg ci digal euh, mu mel nag ci li ñuy jeexale mooy li si mbirum junj léegi rek Euh, am na yeneen liggéey yoo xam ne ñu ngi taxal jumaa yi muy activité lu mel ni activité ramadan yi maanaam muy waxtaan yi def ci biir jumaa yi ci wàllu koor nga xam ne ñu organisé moom itam ngoon bu jot mooy muy liggéey bu mujj bu yaatoo yaatu bu am solo lool waaye jumaa ji bu taxawee euh, yii di wàllu liggéeyu euh, màggal bokk ci bi nga xam ne moom sax bokk yeneen yi ci dolliku xay na ak yeneen yoo xam ne yu xamul waaye maanaam ñu xam ne jumaay Tuubaa ji daal nga xam ne modèle la boo xam ne bu riis ci activité la ci ay yoo xam ni mi ngi koy taxawee di ko dëppaleeg jamono waaye muy lu am njariñ lool loo lool loo xam ne tam euh, daa def xuutal a ñàkk te lépp ñu teg ko ci ndigal euh, ni ko sëñ Abdou Khadre euh, junjee léegi nag dafa mel ni yëpp nag sëriñ bi daf ci dolliwaat leneen muy Cheikh Ahmadou Mountakha di ah, xalifa général ah, ah, al mouride ñu ñaan sax mu guddal fan tey doolu guddal ko wéral doolu ko fa yàggal liggéey boobu nga xam ne da jël dégg ko waa mu xam ne xel ma ñu ànd ko ñu war ko ànd waa Rawdu-r-Rayaahiin yi ci nag yi ñi ma doon wax léegi ci idaara mas jàkka yi ci mustawal insha yi wal bina mustawal idaara daafili yi yëpp bu ci ne ñu war koo taxawee bu ñuy tabax jàkk ñu am caw yoon yooyu ma doon wax léegi ñu bàyyi ko ci xel ah di ko jubale xibla ak di ko dëppale na war a mel waaye di taxaw nii itam jàkka yi dañ koy saytoo ci biir xay na saytu biir jàkka ji moom ña yor jàkka ji dafa moom mi si diggante imaam yi ak bilaal ak ñeneen ña fa nekk maanaam daanaka ak dëkkandoo yi ñoom ñoo ko seq ñu ngi seq yi ah, kon ñoom lépp seenu liggéey daal mi ngi dem ci fa fa boobu la gën a mooy ku bëgg a tabax jàkk ah, ak na nga koy tabaxee ak ñu fexe ba orienté la jàppale ci li jëm loolu euh, liggéey bi ci la jëm muy liggéey boobu solo boo xam ne itam noonu ah, nañ cee daje ba taxawal kuréel gi ba structuré ko na mu tëddee mu tëddee noonu nga xam ni am nay lijaam yu bari yu ci nekk yoo xam ni euh, xëy na duñ ci guddal dañuy koy bàyyi seen xarit na mu dellusiwaat ci juñ leen ci yenn rek waaye. Euh, ñu xam daal am na kuréel bu taxaw boo xam ne ñu ko taxawal ci ndigalul euh, Sëriñ Muntaxa waa daayira Tarbiyya xëy séq ko ak daayira Muxaddamatul Xidma muy kuréel boo xam daal dañuy saytu jàkka yi dolli ko ci liggéey yi ñu amoon muy loolu solo loo xam ne nag ñëpp ci war a jàpp mu dox ndax dañ dañ koo soxla dañ koo soxla maanaam dëkk bi ñu ngi waasam jafe-jafe ci jàkka bari na barab yoo xam soo demee nit dafay dëkk mu yaatu lool mu samp daaraam samp jàkkaam mais gis nañ ni léegi ñàkk réglementé gi tax na nit day ñëwaat ca wet ga samp daan tax jàkkaam soo xoolee ci dëkk bi tu am na jàkk yu jigéen lool lool ba jigi de sa jàkk yu jigéen jigéen te kenn wax kenn dara yow da ngay ñëw samp amaana yow mi miy samp sa jàkk bi koy samp fekk na am na koo jige woon maanaam waaye bàyyiwoo xel waaye bala ngaa xam lii nga def lu danger la keneen ñëw jege la lool te nga xam ne yow li nga doon def danger la maanaam toujours nit dana def dara du xam li muy def euh, dégâts yi ci ne du xam préjudice yi ci ne il suffit keneen ñëw def ko ko moom ci lay doo nga xam ni gis nañ ko day gis bi ci dëkk bi koo xam day ñëw tabax benn établissement scolaire bu mag a mag ci quartier boo xam daanaka mën naa couvrir dëkk ko yëpp du yëgoo keneen ñëw tabaxaat même même loolu ci ci benn barab xam nga loolu tam du du du gëm te ñun mu am na ay ay ay daara ay ay barab ay jàng dañoo jigéen loolu ba ëpp ci même benn quartier wala jàkk ne ngeen ci benn même quartier loolu nag li ko doon mën a dimbali lii sëriñ bi santaane jox ko ñaari mbooloo yi nit ñi jàppale leen ci surtout kilifa yi xam ni lu am njëriñ la ñëpp amal njëriñ euh, buñ ko sàmmutee moom dañ mujj egg ci jafe-jafe boo xam ni kenn du ko a jënd ndax jàkka yi daañu taqaloo daaray alquran yi taqaloo école arabe bi taqaloo école français taqaloo mooy fi taqaloo taqaloo boo xam ne daanaka léegi daanaka kenn xamul ñu ñuul su boobaa nag du neex a saafara kon day dem si ah, defe naa. macha allah ah, mën nañu tënk ci laaj bi ah, na masjid lool waaye lu ci masjid defatul te am beneen ñeneen ñu ko méngoo ci ci ci ci. yeneen mesures yi itam nañ xam ne noonu la war dem daal kon loolu la ñu indi luñ ci borom sant gërëm lu ci njuumte ñu ngi koy euh, jéggalu di jaajëfal mbokk yi doon organiser liggéey bi leen dokkeel baax a baax nag di jaajëfal cameraman cameraman yi ak euh, bi nga xam moo koy jàllale muy euh, organe bi jumaa ji seen liggéey am solo loolu tey loolu yaa ci àdduna lépp ñu ngi leen dokkeel baax ñaan sa borom ñu teewee koy déwén déwén déwén déwén fa mu def mag mag màggal bu neex a neex màggal bu ñu barkeel màggal bu ñu euh, euh, nangu euh, bàyyi si ñu xam yàgg fi lool ak jiw yi ñoom ñu àndal lépp barke Cheikh Xalim asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Maam Balla Mbàkke Muxtaar wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo lool lool lool lool xam naa sax tënku na ci tënku na lool ci temps bi yaakaar naa dañoo waxoon quarante jëm cinquante minutes waaye soriw ko waaye am ngi solo moom foo ko takk rek wees na ko tënku na tey liñ ci seen ci ay njariñ gis nañ ci lu kawe njort bu ñu doon ñëwaat ci lu gàtt rek dañu wax ne fi dooree waxtaan yi mooy gannaaw bu nuyoo wax na yenn ne yi nga xam ne borom xam-xam yi xam nañ ko jàkk mooy fan mooy lan waaye li ëpp solo fii mooy Euh, teqale gi mu indi ci diggante jàkka ak jullikaay ak juma gën a concentré wu bu baax a baax ci lan mooy jàkka nga xam ne saa yu ne suuf sañ koy tabax lu ñuy xubus la lay doonoon lu ñuy def waqf loolu di am lu am solo euh, muy loo xam ne day jox baneen baneen dayoo ak baneen wàccuwaay jàkk muy ne suuf siñ koy def suuf la soo xam ne waqf lay nekk nga xam ne kenn du ko jaayeeti kenn du ko moomati kenn du ko doonati kenn du ko mayeeti waaye mu wax ci xusuusiya yi nga xam ne jàkka am na ko mooy saa yoo ci duggee dañ lay digal bu dul bu dul waxtu woo xam ne dañ fay tere dañuy tere ku la boo duggee nga nuyu jàkk ji bokk na ci lañ fay tere bu dee jàkka la ku am ngànt jigéen ju am ngant du fa mën a dugg wala ku amee janaba moo xam muy góor moo xam muy jigéen akub yéefar xëy na yéefar bi fuqaha yi danañ wax rek ne bu ci ngànt amee euh, bokk na ci lim leeral ci jàkka ginnaaw suuf la suñu waqafle saa yuñ ko tabaxee kenn du tabaxaat ci kaw ngir dëkk ca wala di ca commerce bu ñuy tabax ca kaw daal ngir yàkkalee ko jàkka ji lay doon ngir gën a yaatal yi mu wax yépp nag wute na ko ab jullikaayu kase boo xam ne moom jubluwuñ ko muy yàq jullikaayu kase moom kenn terewu fa yi yépp bu dee jumaa moom day mel ni baat bi firi na boppam mooy rek fu ñu taxawale ajjuma fu ñu jullee ajjuma dafa mën a lentikaafe comme lentikaaf moom ci jumaa ñu koy defee euh, bu ñëwee ci ñaareelu tomb bi te mooy euh, taxawaay yi war a am ci jàkka ak jumaa yëpp ndax bu ñu waxee jàkka rek day yóbbaale jumaa fi ak ñu ngi fay taxawal ajjuma taxawaay ya day mel ni mën nañ ko seetlee ñaari taxawaay am na ci taxawaay yoo xam ne mooy cosaan li mooy mooy taxawaay dëgg-dëgg te mooy jaamu yàlla rek mu indi ay aaya alxuraan ak i ahadis yoo xam ne tegtale na ko tudd yàlla ak julli ñaari taxawaay yooyu mooy ñaari taxawaay yi gën a fés ci taxawaayu jàkka di jumaa te la koy tënk mooy jaamu yàlla rek am na ci ay taxawaay yoo xam ne moom mën naa am ci jàkka lu mel ni séddale asaka yeeg sarax yeeg joxe aw ñam ak ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne wax na ko te mu jëm ci wàllu social wala mu jëm ci wàllu diine wane na bu baax a baax a baax taxawaay bi nga xam ne jàkka yàgg na koo am ci benn la jullit ñi nga ne bu jàmm daan am ci jàkka lañu liggantee ba jàmm gën a law gën a sax waaye buñ mosaan nekk ci ay tolof tolof wala ci ay jafe-jafe war koo liggéenti lu yëm ci wàllu àtte wala ci wàllu xare ci jumaa yi ak jàkka yi dañ ko daan lijjanti yooyu yëpp nag mu tënku ko ci ñeenti taxawaay ñeenti wasaif wasifa bi ci jiitu mooy bi ci cosaan rek nga xam ne moo fi sax ba faw yeneen wasaif yi ci des yëpp jàkka mi ngi ko daan taxawee mi ngi koy taxawee ba tey waaye nag léeg-léeg mu am e, yeneen barab yu ko ci mën a wutu wala yeneen mbooloo yu ko ci mën a wutu wax na fi wasifa diya wasifa tawjihiya muy jàkka am na taxawaayu jubbanti te loolu mën nañ koo tënk rek ci xutba yeeg bayaan yeeg conférence yi ñu fi def bu dee fii bu ko jëloon par exemple muy bayaan yi ak xutba yi day day dugal ay juma yi ñu fi yi fi daayira bi di di taxawe ak imaam yi fi nekk waaye bu dee muxaadara yi day dugal muxaadara conférence yi am ci weeru koor ak yi am ci jamono jii ñu nekk muy ci weeru safara am na wasifa ayniya bu dee ci jumaa ji fii boo la amatoo tuuti rek da nga koy daj te mooy daarul maarif bi nga xam ne bi ñu tabaxee jumaa ji dañ ko ko bootal kon loolu lay wan ne rek ne kilifa yi fii yàgg a nekk it yàgg nañoo xam taxawaayu jumaa taxawaayu jàkk wasifa ijtimaaya bi bu dee fii ci jumaa ji ak fu ni mel danañ gis ne fi la Eh, fase sëy yi xëy na bu dee asaka yeeg sarax yeeg yu mel noonu am na ñeneen ñu koy taxawee ba mën naa bañ a fees lool ci jumaa ji waaye am na yeneen xadamati cimaa yi yoo xam ne dañ ko fi def te xëy na da ca gën a fees fi ne nii mooy iftaar yi nga xam ne moom lañuy def ci weeru koor gi waaye nag mu mujjee ci lu am solo muy taxawaay bi nit ñi war a am ci jumaa mu seetle ko ci ñaari taxawaay taxawaay yi nga xam ne moom lañuy am ci bu ñu koy taxawal te mooy ñi nga xam ne ñoom ci tudde ay muxsinoon ñi yàlla dénk ñoom mën nañoo taxawal waaye buñ ca noppee nag la koy saytu saytu ga wane ne ne ci réew jullit ñi baree baree bari am na ci ay tënk-tënk yoo xam ne dëppoo nañ ci ci ne noonu lañu war a saytoo jumaa am gum am solo nag Euh, moom jàkka wala di jumaa ak it taxawaay yu am solo yi nga xam ne sëriñ bi lim na ko muy ay taxawaay yoo xam ne jumaa da ko war a taxawee loolu moo tax nos ko saa yu ne dafa war a dafa nos gi dafa war di continuer dafa war di rafet waaye it euh, ñi koy dañ ko dañoo war a nekk ñoo xam ne taxawaay bañ ca war a am taxawaay bi dafa war a mat sëkk te leneen koy may mooy ñu am compétence loolu moo tax comme ni mu ko junjee ci mujj waxtaan wi fii fu mel ne Touba xëy na nit ñi xër ak bëgg lu baax mën na leen a yóbbu ci léeg-léeg ci ñu mën a def njuumte te duñ ko yëg njuumte sax daa commencé am ba commencé law ba commencé bari loolu moo tax sëriñ bi daal di jox ndigal ñaari mbooloo yi nga xam ne ñoom lañ fi tudd léegi te mooy daayira Muxaddamatul Xidma ñu ànd ko ak daayira Rawdu Rayaahiin pour jéem a saytuwaat xoolaat liggéey ak taxawaay yi nga xam ne moom la jumaa war a am rawatina fii ci dëkk bu sell bii nga xam ne boroom kenn ku ci ne xam na digganteem ak jumaa digganteem ak jàkka niñ demee woon loolu moo tax taxawal nañ mbooloo mi mbooloon mi fii fii ñuy wax ak yéen nii ndigal li sëriñ bi joxe na ko ba noppi lañ ca war a lañ ca lañ ca war a taxawee ci taxawal ay commission taxawal nañ ko ba noppi am na ku ko jiite am na ay coordinateur am na ay secrétaire am na ay commission yu wuutee wuute yoo xam ne xëy na bu ñàkk balaa yàgg danañ def lancement bi bu boobaa liggéey bi danañ ci gën a yaatal ca anam gam gën a rafete anam gam gën a mate waaye li am solo daal mooy fi ne nii képp koo xam ne bëgg ngaa tabax jumaa wala nga bëgg a tabax jàkka mbooloo moom danañ ñëw saytu barab ba xool ba xam euh, li nga fi bëgg a tabax laaj na ko wala laajoo xool yi anam gi nga koy tabaxee ba noppee it wa lépp lu ñu la ci mën a jàppale ci ay orientation lépp lu ñu la ci mën a jàppale ci ay laabire ci ay jubanti ak fu ñu ci mën a ànd ak yow rek ñu ànd ci ak yow liggéey la nag boo xam ne sëriñ bi dañuy joxe ndigal waaye daayira bii di daayira xam Khidma yàgg na koo taxawee waaw daanaka daayira bi at yi yëpp rawatina at yu mujj képp koy ubbi jumaa wala ngay ubbi sa jàkka da leen woo ñu taxawal la ci jox la dara ci seen expérience bu ko defee nga mën koo niitoo ba mën a xool mooy yore sa jumaa moo koy mën a saytoo ala kulli xaal kon liggéey la boo xam ne liggéey bu bees la dañoo waxoon ne mënut a ñàkk rek ñu ko te sëñ bi liñ ci junj doy na sëkk xëy na balaa yàgg xat-xati màggal gi mooy tax waaye bu ñu demee ba jógee ci danañ defaat am ndaje mu gën a yaatu moo xam ne dana nekk lancement boobaa danañ leen wax mbooloo mi ni mu tudd dëgg-dëgg ñi ko jiite commission yi ci am ak it ñu war a liggéey yëpp kon ñi ngi santaat mbooloo mi bu baax a baax a baax di sant ñi ñu doon teewlu ñëpp di sant euh, euh, ligne bii nga xam ne moo ko doon jàllale te mooy MK TV di Muxaddamatul Xidma euh, ak it seen page Facebook grand Mosquée de Touba ak bunt yi ñu am yëpp di fa jàllale ay xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di sant ñi ko jëlaat ci ñoom di ko diffuser waaye di sant mbooloo mi teew ci jotaay bi yëpp di sant kilifa yi nga xam ne ñu ngi nekk ca seeni wàccuwaay di ñu diglu di ñu bàyyi xel rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal majlis bii nga xam ne moom lañu junj léegi te ñoom ñëpp waxoon ne danañ bàyyi xel waxtaan wi bu baax a baax a baax di santaan bu baax a gërëm ak a ñaanal ak euh, sëriñ bi nga xam ne moom lañu àndoon ci taay bi te mooy sëriñ Mame Balla Mbacke Muxtaar di ko sant di ko ñaanal ci taxawaay yi nga xam ne ñu ngi gis saa yu ne mu koy taxaw ci yeneen ji rafet di ñaan suñu borom gën koo dëgëral gën koo kàttanal li muy def lépp te yàlla tax sëñ bi tax mu tase ca ak seen ngërëm di wàcce suñu kàddu foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje xam ngeen ne waxtaan ñi day continuer ci comme ni ma ko waxee woon léegi ci juróom-benni fan yi tey moo nekkoon ubbi bi comme ni ñu doon waxtaanee yaakaar naa wax nañ ko léegi te mooy jàkka ak jàkka ak taxawaay yi mu bu ko defee suba incha allah danañ waxtaane danañ jàngat ak faram-fàccee xasida gii ñuy tudde yaasal bushaaraat yi ki ko war a taxawee mooy Serigne Bassirou Touré ñu ngi leen jox dig daje kon ci waxtu yi euh, juróom-ñett ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri simili te muy vingt et une heure allah di santaan mbooloo mi teewoon ñëpp di leen gërëm di wàcce foofu suñu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa والقلم وما يسطرون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 ربك بمجنون